waxtaane wàllu làmb euh, ñu dooroon ko tey ak euh, journée bi nga xam moom la ñu jógee muy euh, bombardier ami doon bëre ak franc en termes d'organisation le seen a encore sorti les gros moyens tey boo ñu doon ñëwaatal tey ci wàccaayu loolu noonu yëpp tey ak fi làmb tool ñu ci bëri jàppoon ne làmb tey xëy na am na fu mu féete tey le CNG encore montré que am na lu bëri loo xam ne moom dese nañu ko donc mhm. euh, loolu firnde la woon euh, boo ñu ci doon ñëwaatal. waaw vraiment foofu bu ñu si taxawee foofu la ñuy nangulee tout le mérite du CNG dirigé par président Bira mhm. euh, benn jamono bi président Alioune Sarr di quitté inquiétude yi bëri woon na jaaxle est-ce que bu demee dina am ñu capable de continuer euh, flambeau bi wala di gérer la lutte comme elle se gérait avec euh, le président Alioune Sarr mais force est de reconnaître très honnêtement que on n'a pas senti de cassure on n'a pas senti de euh, de faiblesse wala de diminution wala de régression tout au contraire euh, on a senti une certaine évolution on a senti une meilleure organisation on a senti également gars ñi gën a bëgg làmb au point que maintenant à part le vendredi. Mm. pratiquement sur la semaine dinañ ci tëgg trois ak quatre fois. Mm. bi saison tijjee ba tey et ça sur deux ans au moins ces trois dernières année mm. amatuñ samedi amatuñ dimanche amatuñ mercredi yu disponible. les mercredis les samedis les dimanches les promoteurs ñu ngi xëccoo di jëkkante ak les jours fériés évidemment mhm. ñu ngi njëkkante di ko organiser le calendrier au moment ou je vous parle ça devait s'arrêter le 31 juillet on était contraint ñu yóbbu ko ba le quinze août tellement que le, le stock qu'on avait mënuñu ko woon épuiser bu ñu ko arrêté woon le 31 juillet avec les risques bien sûr au mois d'août on est en, en hivernage ouais, ouais, mais malgré risques yooyu malgré possibilité sa journée mën a yàqu ils ont osé mhm. yóbbu ko fa daaw def nañ ko daawaati géej également def nañ ko mhm. et cette année également am na des promoteurs yoo xam ne ils ont déjà pris engagement pour entre le premier août ba jusqu'au 15 août mhm. ça tout ça pour vous dire que ñu ngi ci benn dynamique gu euh, continuer làmb ji di ko gën a Euh, jëmale kanam et dernier exemple bi ñu si am nag mooy tey. Mhm. au moment wu may wax yow nii arène nationale laa jóge euh, raar na journée yu mel ni bu tey bi. Mhm. où on était obligé la sécurité demande à la police demander à la au promoteur. Mhm. mu arrêté jaay billet. tellement que le stade était plein. dinañ ci ñëw l'arène fees dell la def. de sécurité si boppam la police moo ñëw demander au CNG d'intervenir auprès du promoteur pour que ñu arrêté jaay billet bi donc tout ça pour vous dire que l'engouement qu'il autour de la lutte mm. te ñu sante ko yàlla sante ko également tout les composantes de la mm. lutte parce que après tout au-delà du CNG mm. ku si nekk niveau bi nga féete bay nga sawal bu baax a baax